ya yaa da fay génne nit ci ay khat khat ya yaa da fay ubbi wërsëg manam hmm. jamono bi nga amee njàqare sax ci ci ci aduna nga xamné da nga tiit da nga jaxlé da nga fébar so liggéey ya raxmaanu ya raxmaanu insha allah 330 30 nga diko liggéey bis bu nek rek mbokk 330 waaw boko déféré defee insha allahu euh, dana dana dana jàppandi ya raxmaanu dina dina salaamu aleykum bul fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am bul fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am li nga xamanteni bi nit ki buy defar kër wala buy defar dara nga xam ni mbir mi dina mën a yomb yomb ko lool maanaam daal affaire yi neex na léegi ñu ñëw ci nag euh, mbirum cosaan mi maa ngi jéggulu sax ci temps bi ñu jël waaye ah, mënta woon a ñàkk parce que mbiru diine la te itam lépp nag li ñuy def lépp diine ji moo ko ëmb euh, léegi nag bu dee rek nit koo xam ne dafa am tabax waaw boo xam ne da nga koy tàmbali hmm. wala ñu may la suuf nga bëgg ci ja yàlla mu may la ciment ak feer ak suuf ba daal nga dëkk ko ci jàmm hmm. li koy li bi ma ciy joxee mooy da ngay jël ay mboq mboq mboq waaw nu ñu koy waxee ku ko mën a wax ci français nga wax ko. mboq maïs maïs. ngay jël trois cent trente. trois cent trente maïs ñetti téeméer. ak fanweeri doomi maïs. ah doom da ngay jël benn doom ñaar wàññi ko ba muy trois cent trente mu jàpp li mu bi yaa raxmaanu. waaw nga gas ba mu xóot. waaw nga def ci ndox ba pax mi sedd nga ko ci. nga ci yi ko. Mhm. di liggéey yaa Rahmanu diirub tabax ba tabax bi. incha allah du taxaw tabax bi du taxaw du taxaw inshallah dina di ko tabax ci jàmm ba dëkke ko ci jàmm te du taxaw du taxaw waaw ya ki eh ya rahman bi naka la nokoy koy ya rahman waaw rek ngay def ya rahman 300 337 bu ne keur guñ dëkk ba nopi te borom keur gi bëgg xéewal yomb fa waaw su wuté ñett témé manam 330 yoyu ci mbokk waaw euh benn bu nekk day jang 300 ya rahman ya rahman ya rahman diko def comme ni di sanni di sanni bam mu nekk 330 waaw mu jël ko. Mhm. def ko ci morso takk ci kër gi wala bu fekkee fu ñu mën a gas la mu gas ko ci kër gi suul ko. di fa liggéey yaa raxmaanu dafay indi xeewal. sëñ Tuubaa bi muy dund. Mhm. su jamono masaan xat nit ñi am bekkoor. waaw joxe limub yaa raxmaanu bu mag. Mhm. nit ñi liggéey ko rek jamono ji tool yi day naat. affaire naat waaw. ba ci biir këram man gëstu naa ba xam ne am na mag ñoo xam ne bu nawet masaan jege rek mm. da leen di liggéeyloo yaa raxmaanu yaa raxmaanu dafay génnee nit ci ay xat-xat yaa raxmaanu dafay ubbi wërsëg mm. maanaam jamono bi nga amee njàqare sax ci ci ci àdduna nga xam ne da nga tiit da nga jaaxle da nga feebar soo liggéeyee yaa raxmaanu yaa raxmaanu incha allah 330 30 nga di ko liggéey bis bu nekk rek mbokk yi 330 waaw boo ko defee incha allahu dana dana dana jàppandi. dina dina dina yomb. d'accord waaw dinañ ko def tamit ci oto ku am oto. oto nga bind ko ba mu yegg nga def ko bind ko ci baar bi. foofu na loolu nag am na ci ñaari secret mooy sóoratu yaasin. Mhm. dinañ ko bind def ko ci oto. boo ko bindee bu soobee yàlla yàlla dina la musal. Mhm. dinañ bind itam yaa rahmaanu 330. dugal ko ci biir oto. def ko ci biir oto ci biir oto bi nga koy dugal. ci biir oto bi ci baar bi rek booy nga xam ne booy dawal da koy. uuf daal ci sa kanam. Ah. insha allahu jàmm rek ba keroog. jàmm rek oto boobu. jërëjëf Cheikh allah Cheikh Bara am na solo waxtu wi dab na na Muhammad mooy drapeau njub. yaa badratin nee na Seydina mooy weeru mat wi. fil wujudi alal mada. fil wujudi ci mbindeef yi alal mada ci lef. yaa xayra xalqillaay. yow mi gën ci mbindeefu yàlla yi. yaa man fayduhu. nee na woo naa ka nga xam ni akuk bëbbam moom rasulillahi. amal baraaya. nee na Seydina ay ngëneelam. ak teraangaam matale na mbindeef yi. muntaha wa muntada. ak tàmbali. yaa kaw يوم خمي اي بديوبي فاق المدور موكو ويري بحسنه في سمدار يوم رسول الله يا مرسلا يومي يلا يوني بالحق يلا لا يوني جدك دوما دوما فاو سرمدا سرمدا اكو كبتو يا رحمة يوم خمي اي دمير مني للعالمين نيل من ديفي وعدهم اتيني كوريل يا غايه الأرض yow mi nga xam ni yaay dayoo yi lépp yow rasulillah. yaa mujjli sada. yow mi nga xam ni yaay feeñal ngelaw yi. bi kanaalati afaaq. ci yow la gox yëpp amee. kullu fadilati. gox bu nekk am na teraanga mi ngi ko amee ci dara jooy rasulillah. ana sa bayna wi wa tasharrafat la teddee. lamma janaabu daqat bada. keroog ba nga feeñee yow rasulillah yi. wa tabaasharat. daal di bég na. bil hamli. ba ñu la mbee muuree mbir. ah minati riba. keroog ba nga nekk ci sa biir wuy nu gërëm ba waalak maqaama nee na yaayu sidina Muhammad kawe na daraja faaqiran nee na muy gën a puuku réew ñëpp wa mu majjada nee na yaayu sidina Muhammad a gën a tedd lu yàlla bind wa tayru sabaha aminan nee na njënaaw mboolem luy naaw yaa ngay ñëw ba ci yaayu sidina Muhammad di ko bégal ak ak a ndokkeel li xudumi daatika ci sa dikkuk jëmm ji yow rasulillahi yaa habibu wa xarada yow soppe bi ci la lépp leere wa kawaakibul isra nee na bitiwuk mbig fii nga ca goxu mbég ya talaat daal di fenk wa misbaahil kumaali nee na weeru mat sëkk tawaqada leer na bani nañ wa xalimatul baraka nee na alimatu saadiya mu barkeel ma mu ñil mi la nampal ana safi alimatu saadiya wa xalimatul baraka nee na alimatu saadiya mi la nampal yow rasulillahi lama aqbalat nee na keroog ba mu la jubee xool la wara at ka kal badril mukammali yawda alima xool la yaa ngi mel ni weeru mat sëkk alima nga naan hada saadiya ngay wax nee a kii jamaalul kawni nee a kii mooy taaru adduna bi ali maa nga naan haada nee na kii jamaalul kawni mooy taaru adduna bi saadiya nga eh. naan haada ali maa ngay nga naan haada alladi saadiya kii mooy ka nga xam ni milkul wujudu tajaddada ci moom la mindee fépp yeesee saadiya nga naan haada turandoo nee na kii muraati mooy sama nammeel ali maa nga naan haada nee na Seydina Muhammad mooy sama nammeel bëjët mu jëkki mooy sama nagu bët moom rasuli léegi ali maa nga naan haada saad yaa ngay wax nee na kii li xalqillaahi ñeen na ko mbindee fi yub'asu murshida yàllaa ko yónni pour mu gindi leen yàlla ana ana soppi Seydina Muhammad yi Mustafa yaalam li muy firi mooy xamal waaye sama sëriñ sëriñ Mara Fall na mu koy firee mooy nee na xam ba xam jeex ki war a ki jara xam mooy Muhammadu Rasulillahi yaalam nee na xamal ni anna rasul rabbil alamin naka naka sayyidina Muhammad mooy ndaw lu borom mbindeef yi yaalam xamal ni qaidul xurril muhajjali mooy wambat sang yi di way jib moom Rasulillahi yaalam nee na xamal ni sayyidu jami al anbiyaai wal mursalin nee na seen sopp bi ana ko ko bëgg Seydina Muhammad man de bëgg naa ko nee na bëgg ngir man yàlla ya mooy sangu ñi yàlla yónni ñëpp nag sayyidu jami al wal mursalin moy sangu cent vingt quatre mille prophètes yi ak ñetti téeméer yi ak fukk ak ñett ñi yàlla yónni ay waay yàlla ya Adja Ndeye Li Ndiaye maa ngi lay nuyu aha yàlla ya alaaji Mamadou Balaay ba kontaan naa xaaji Maadu bég naa xamal ni رؤوف بالمؤمنين نينا سين واجي كو ام نيمون تلا تجوني شفيع بالمذنبين نينا سيجنا محمد اي رم برام بكاري ورسول موي ندوالو الى كافه الخلق اجمعين يلا كو يوني كي مول من دي في محمد كما قال الله نينا كوم نيكو يالا واخي سبحانه وتعالى تدنا سي لو كتاب المبين تتيرم بي دي القرآن الكريم ما كان يلا مي ما كان نقول محمد محمد محمد مي أبا أحد أبا أحد دي بايو كن من رجالكم تسين قوري ولكن لفي نكنا رسول الله نينا سين واجي نولو يلا ولكن نينا لفي نكنا حبيب الله نينا سيدنا محمد مو يصف يلا ولكن نينا لفي نكنا نور الله نينا مو يليرو يلا ولكن لفي نكنا سلام الله bul fàtte cliquer ci ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am bul faté cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am salaamu alaykum alaykum ye asalaamu alaykum alaykum